fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yow mi bi ñu leen baaxoo andil bis mu nekk ci kattanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou Sy danañ ko defal ñoo ngi àddoo fii ci institut xikmatul yow mi pour l' éducation et l' enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk ci cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 te ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbali woon fan yi ci alhimmatul aaliya muy yitte ju kawe te yitte ju kawe nag kon xam ne ni mooy taxa am te fan yi yëpp ñu joxe ci ay misaal ci sëriñ bi waaye mag ñi ñi nga xam ñoo àndoon ak sëriñ bi itam yitte ju kawe jooji lañ am xon ba tax liñ am ci sëriñ Tuubaa lépp ñu am ko ñu am ko ci ñu andi ci misaalum kenn ci ñoom muy Serigne Malick Bassine si dafa misaaloon yitte dafa waxoon ne eh, ab wutkat maanaam ab wutkat ab murit yàlla lay wut ndax Sëriñ Tuubaa loolu la jàngale woon isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani aysu qasada ab murit benn bëgg-bëgg la war am muy sun borom tabaaraka wa taala muy àgg ci yàlla ab sëriñ benn bëgg-bëgg la war a am muy àggale ab taalibe ci yàlla waaw kon ni mu isil murabbi laa yuridu fil murid illa al wusula naajiyan min al marid moo tax sëriñ Malick ne dafa misaaloon eh, yàlla ak yonent bi ak ab sëriñ ak pasteef ak yitte daal di wax ne mu ngi mel ni ab teen mu ne yàlla mooy ndoxum teen ba moom la ñëpp soxla ku ne xam ne ne ku ku jëm ci teen ndox ngay wut kon yàlla la wut waaye nag mu ne lëmum teen bi nga loolu ñu tabax nga xam ne mooy lëm mi nee na mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kuy jëm ci yàlla faaw nga jaare bi sallallahu alayhi doo dem mu goj bi mooy buum goo gi nga xam ne nii ci la ñuy takk baag yi indi ndox nee na goj boobu mooy sa wasila mooy sab sëriñ bu taxoo ilayhi la wasila kon wasila ala kulli xaal mënta ñàkk ndax ab teen moom doo ñëw rek daal tàbbi gis gis ndox ma rek mar daal di wuti ndox ma daal tàbbi ci biir déedéet waaye it teen bu amum teen bu amum ndox nga seen ndox ma itam faaw nga wuti goj kon wasila muy kilifa mënta ñàkk nee na baag yooyu ñuy takk ci goj bi nee na mooy paseefu taalibe bi kon kenn ku nekk nu say baag toll noonu la sa noonu la sa yi kon dañoo ëppante moo tax baag yi ëppante boo demee ci teen bu da nga fay gis ko yor baag bu baag yu mag a mag gis fa ko baag yu ndaw nee na xëcc googu yi nag nga xam ne moom la taalibe bi moom la nit kii di gaaw di xëcc di baral ba amum ndox nee na loolu mooy yitte kon yitte yu taalibe bi mooy di gaawtu ak farlu ak di Eh, di ci lu bari rek ba keroom yu bari ndox mi loolu mooy yitte nga gis kon mag ñi ni leen yitte yitteeloo yitteelee woon ak niñ ko daan misaale moo tax sëñ Bay Jaxate di wax ne yitte akum xel ndab laa ngi jàppal joxe ñu feesal dell ci yàlla sa yitte nam day ak na sa xel day sëb cër na lay day faw ci yàlla nit kum xelam rëy itteem itam rëy fawub cëram rëy giñ ko ci yàlla nit kum xelam tuut itteem itam tuut fawub cëram tuut giñ ko ci yàlla kon lu ama am solo la yàlla nañu ko suñu borom tabaaraka wa taala def la noonu ci sëriñ bi meloon nag mag ñi itam noonu lañ ci meloon waa kër sëriñ bi ci lañ koy tàmbalee ak Cheikh Moustapha sëriñ bi daf ko ma a yónnee oto boo xam ne Cheikh Ibrahima Fall moo ko jënd ci fukki fukki junne ñaar ci ngurdu yónnee ko sëriñ Tuubaa addiyee jox ko doomu ji wax sëñ Moodu Mbenda ne ko boo demee nga laajtee sëñ ba nga jox ko ko ne ko na ko jox ña doxal fere bam ñëwee sëriñ bi daal di laaj fu mu jógee sëñ Modou Mbend ne ko de moo ma ko yónnee ne naa la ko jox nga jox ñu lay doxal fere yi sëriñ bi daal ne nañ ko yët Modou Moustapha nañ ko yët Modou Moustapha bañ koo yëtee si Cheikh Moustapha daal di laajte oto bi fu mu jógee sëñ Modou Mbend ne ko ah man de sama baay Cheikh Ibra ko jëndoon ne nañ ko yët sëñ Tuubaa sëñ bi ne nañ la ko yët fekk sëñ Modou Mbenn ba may dem sëñ bi da ko booleeg sëñ Aliou Sey Cheikh Moustapha daal di laaj oto bi lu mu jaroon sëñ Modou Mbenn ne ko Cheikh bi daan ko jëndee fukki junne ñaar ci ngurdu Cheikh Moustapha daal di làmb gaalam génn ci fukki junne ñaar jox sëñ Aliou Sey ne boo demee ne ku baax ki maa ko tuubee ndax dara warta ci moom ñu koy delloo waaye lépp lu muy joxeeti lépp lu muy joxati ak njabootam na ko jox sëñ Fallou ak rakam lépp lu muy joxati mbokkam na ko jox cerno ak rakam te man mu def ma ab saadex kon ñoom foofu la ñu nekkoon sëriñ yi tam gis nga nam jaayee ak njureelam jëndee ko ak taalibe jaayanteeg sëriñ Touba ba ko sëriñ Touba la ko ci sëriñ Touba waree fayee it mu joxaat ko ko addee ne ko def ma ab saadex am na fu mu waxee ne sax duma taalibe bu bëgg a doon baayam duma doom ji bëgg doon doon baayam duma taalibe bu bëgg a seex eh, daal na duma dara ci sëñ bi naa nekk ci biiram rek duma dara ñu nekk ko ab taalibe ab taalibe nga mu ne du ma taalibe sax du dara naa nekk ci sëñ bi rek loolu mooy alfanaa kon ñoom dañoo jeexoon ci sëñ Tuubaa sëriñ Dame Abdourahmane na lettre bu ko sëñ Tuubaa bindoon ba mu nekkee Gaboo wax daf caa bind ne ayyuhal muridu sadiq allazi fanaa fii yekk fanaa i fillah yow murid bi nga xam ne ni jeex nga ci man ni ma jeexee ci yàlla kon ñoom ñëpp dañoo jeexoon ci sëriñ Tuubaa ndax seen yitte ju kawe moo tax ñu am ca lañ ca am kon nañ leen roy ci loolu yi yàlla nañu suñu borom defal tawfiix ñu roy leen